asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki àdduna bi ñoo ngi leen di nuyu seen mbokk Cheikh Ndiaye dëgg la di sama pas-pas di confirmer su may wax wax bi lan la doomi jaara doomi Sedela Poker doomi jaara Bousso dafa wax ni dogal bi yàlla dogal ci bépp nit nee na yàlla sedd na ni mucc na ci lu doomi la Poker wax muy Robert Nestor marle and Wailers donte dafa sàcc wax bi moomu ko waaye moom intéressé ma ab waxam man man waxu ba marle intéressé ma waaye wax bi mu sàcc moom laay nangu ji mu ni li wérte wóor dogal bi yàlla di dogal ci mbindeef yépp amul ku ciy mucc mu ni loolu du ay fen wax bu leer la wax bu wóor la amul ku dul dee nit ku ne dana sonn te day dee lépp luy tooy day wow képp ku man day tële buftub ñaareel ba dina ñëw gu jëkk ga day ñëw mu ni bu leen ko laaj mu ni lan bu leen ko ko laaj de mu ni dafa am përëf ana preuve doo mu ni yër leen téere ya su ngeen ko yëree da ngeen ko ges juróom-ñetti fan la sàcc wax bi wax ko dal di dee mu du mbàkke ni àllama nii maakaana xabdal xalxi ñu fekk ko mu dee li may wax xam naa waaye wax bi nag ñu ni chrétien moo ko wax chrétien moo ko wax kon du wér déedéet ñun jullit yi ñoo ko moom ci suñu téere la wàcc jullit bi nag ginnaaw loola li yàlla dogal da ko wàcce ci téere mu lànk ko ni deñ na ca yow nga dégg nga dox ba dégg chrétien bi wax ko saxal ko lii jullit bi wax nag dama koy weddi di wax ni man fa wantuwuma ci sama dëgg la ma ne li wér ma ni li robel Nestor Marley wax moo gën a am ab delluwaay ci téere yàlla bi li mu di wax mooy Cheikh Ahmadou Bamba ndax Bob Marley sàcc na wax yàlla maanaam donte bi yëfar la saxal wax yàlla Ahmadou Bamba weddi wax yàlla man Cheikh Ndiaye dëgg man maa ko wax su ngeen weddee yër leen téere yi ku ko weddi weddi dëgg ku ko saxal saxal dëgg dëgg yàllaa ko moom ci yàlla lay bàyyi ko te la ma waxoon nag saagawuma muslim saagawuma buxaari waaye dama ni wax boobu muslim mënu koo dindi buxaari mënu koo dindi anbal mënu koo dindi wax boobu nga xam ni Bob Marley da koo sàcc wax ko ca téere ya amul ku koy dindi ba yow mal xiyaam loolu taxul ma saaga muslim taxul ma saaga buxaari yàlla gis na lépp yàlla xam na lépp